waaw machine bi dama ko créé pour participer si combat si coronavirus bi parce que xam nañ ne moment bu ñu toll dafa nekk lu doy war daal teg si comme cas communautaire yoo xam ne tey jii day wàllum suñu biir te kenn xam ko ko am donc loolu dafa gën a waral ma gën see mën a jàpp moo tax ma créé machine bi bu ko defee di nga def lu nga bëgg yëpp sa loxo du laal te je pense que loolu mën na permettre benn propriété ak benn combat si si si si si si si xeex coronavirus bi machine bi dafa am juróom parti boo ñëwee boo jël caabi da nga koy taal soo ko taalee mooy yaa ngi alimenté machine bi boo ko alimenté boo ko taalaatee day joxe son bi c'est-à-dire machine woote kaa leen raxas seen loxo donc boo ko tegee si marché même ñu romb da leen di woo seen loxo kaa leen raxas donc donc machine daal day participer daal donc euh, machine boo boo paree boo paree boo taalee bu la neexee tamit nga fay son bi su la neexee nga bàyyi ko muy continuer am yaay choisir looy def. léegi bu fekkee après boo demee da ngay jël nga appuyer tànk nga am nga nga am savon liquide bi nga raxas sa loxo boo demee après nga jël ndox bi nga nettoyé ko ba mu set soo ko nettoyé ba mu set boo pare nga bës mu wowal sa loxo loxo bi day wow koŋ après bu loxo bu wowee donc nga ñëwaat ñëw jël sa masque nga takk sa masque donc doo laal dara daal waaw. waaw machine daal waaw machine daal je pense que comme ni ñu ko gisee je que tey jii. ñëpp mën nañu ko utiliser xale yu ndaw yeeg ñëpp tey xale yi dem si boutique bi tey jii bu ñu jógee si boutique yi nañ mën a raxas seen loxo ñu dem sa buntu kër di a raxas sa loxo ñu jógee marché tamit bu ñu a dañ ko mën a kuy ñuy xëy tamit dinañ mën a raxas seen loxo am seen ko kotool wowal ko takk masque c'est vraiment du am benn danger donc dama ko créé pour jàppale dëkk bi pour participer si combat coronavirus